jëre ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme ni ngeen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci caara yi xale bi ñu fi woo di ñàkk jariñu war a bëre le 9 février fëre ci arène nationale suñu papa Khadim Samb moo ko tëgg mu war a daje kan kenn ki nga xamante ni monument la ci géejawaay muy Alioune Seye numéro 2 kenn du ko présenté ñàkk jaxar yu ñu doon na mbër moo xamante ne def na lu rëy ci làmb bërki démb gis ngeen tournoi TFP bi lim ci def moom ñàkk muy daje koo xamante ne ci làmb kenn du ko natable muy Alioune Seye numéro 2 mbokk tey moo tax wasaare làmb ñëw fii ci open press xoolal leen ñàkk jariñu nan lay dugg see ay mbokkam nan lañ ko waajalee bis ba le neuf dana yombam du yomb sëñ Basiru kaay xool tëggkat yi ñoo am solo ci làmb ñi sëñ Bassirou dikk na xale baa noonu dikk na yor na nen toj na benn tojaat beneen sëñ Bas tojaat na beneen tojaat ana beneen tojaat na beneen ñett ñeent juróom sëñ Bas juróom benn sëñ Bas juróom ñaari nen daw na dogali na sëñ Bas koo koy ñàkk jariñu <laughs> am na lu mu sex de ay ñàkk lu mu sex jox nañ ko koko bënd nañ koko ba ma ngay naan naan na ci koko ba naan na ci ndoxu koko ba <laughs> joxe na ndox ba ma ngay tuus ma ngay dongali ma ngay ree <laughs> ñaq ndeysaan am na lu ñuy jeex lu ñuy jeex làmb lépp tegtal la am na lu ñaq di jeex sëñ Bass mu ngi benn bant bant bi ñu ngi ko awee eh, morso bu xonq génnee na béjjën ba hee eh, béjjën lay seet hee eh, am na béjjën bu xonq buñ génnee def nañ ko ci saag ba mbër ma ngay wis ay ñax ngay wis nii la mel de ku mu bëreel wis na la ku mu bëreel wis na la la muy wis laa xamut lan la am na la mu sex waaye ma ngay wis ñaq ngay wis ay ñaq ñaq li ngay wis lu mu doon. lu neex nag waaw lu neex ram la wala suuf lépp na saf sap barki borom doon ñaq jëlal. waaw waaw Basiru waaw waaw sama waa ji maa ngi lay siyaar. maa ngi bu baax. tur bi nan la. El Hadj Alaloo. El Hadj Alaloo daa mel ni waa Géejawaay wala waa Caaray jooyatuñu Malick Gakou ndax booy sànq am na ñu may joxañ na ma yaay seen Malick loo ma mën a wax ci loolu. waaw loolu d'abord maa ngi waa Caaray yëpp di leen gërëm di leen sant. waaw. ñeex dafa nekk koo xam ne ci koñ bi da nga war a jàppale daal. waaw ndax mu dem saa nit ñi. waa Caaray eh, dañ ko yéene yàkkamti ko waa Géejawaay nag loolu mobilisé wu rek doyul ndax ñax dana wasaare stade bi la nëb moom ñax dana ko wasaare dama bëgg ñu xam ne waa Géejawaay am nañ combat. noo koy waajee. li ma koy waajee mooy ana sama mbër yóbbu ko day jàpp Alioune da duma lu mu am ci laam laa de gannaaw ko ni bëri bi fi lay feeñee Alioune Seye courant bëre ay ñoom Modou Lo jàng laa la guerre numéro 2 bëre. ay ñoom boo ñanga ci lamb kooku xam nga ko mbër mu ndaw te Ndiakhate espoir lamb la mooy mbër moo xam ne caare fii a ah, bëri na ay mbër waaye mbër mi wute na ak mbër yi bu Ousmane da koy duma damaa bëgg nag kaas fonde bi fi lay commencé bu ñu xati yoo Aliou Seye bu noppi Balla Gaye jël kaas fonde bi boo ñaa di ko ko boo a jël kaas boo ñaa da ko war a di Balla Gaye barki yonent bi jël combat bi mën a doomu nay boo ñaa alaaji loo mi ngi ni doomu nay daaw jël combat bi ñu duñ ko woo fu gaz fonde bi. ma lay jaajëfal waaw di la jaajëfal yow tamit bu ngay njuub ay dafay njuub ay ñaqay njuub dafay njuub. Serigne Bass ñaq bi muy dugg si lii la yor tee ko ci loxo bi ŋànk ko ci gémmiñ ga samp ko ci digg géew bi lii ak làmb ñoo ànd. aada cosaan la ndeysaan lii xawma ma fu mu ko jëlee waaye benn galañ la bu ñu ëw morso bu xonq takk ñaari petaaw ci kaw takk ñaari petaaw ci suuf ñaq jariñu xalaat dinañu wax lii fu ko jëlee ak lii ban solo la am ci làmb <laughs> ay Wassare bas xaw ma ku amul confiance waaye ñaq jariñu mii ma gis am na confiance ci làmb ji xaw ma nag xam na ki muy bëreel waaw wala déet ndax Alioune Seye numéro 2 maa bëreeg Modou Lo na ci làmb du gan ci làmb boo bëggee dégg grand contre bu njëkk ci làmb mu ngi nii Alioune numéro de ak ñaq jariñu xaw ma nag lu ñàkk di indi ci làmb ja da koy duma wala da koy daan wóoruma Alioune Seye nan lay bëree ak ñàkk jariñu xamuma waaye mbokk yi ñàkk jariñu mii ma gis ci open press bi am na confiance ci làmbam ñu xool am solo lu ma la waxoon sëñ Bas nee naa la Pikine Géejawaay yi dafa am loo xamante ne dafa nekk seen biir bu seen doom di bëree dañ koy sotal ñëpp ay sot xoolal maire yee ngi ci biir loo koy dawee bàyyi ko mu wax yaay booy tey dama laa gis fii ci open press bi nga ñëw seetaan si sa doom ban yëg-yëg nga am. am na jom respecte ne ay magam fu ma gis sama yaay booy loolu laa am ndam rek ndam rek. ñaq neex naa dëkkal. neex naa dëkkal ndax dafa am jom dafa am joom dafa baax. waaw bëgg na nit yëg na nit fii la ma romb léegi déree yaa booy te lu baax rek. combat bi loo gis ci moom. lu baax rek lu baax rek day am dafa yaru. ndeysaan ay yaayam lañ mu déplacé leen indi leen fii soxna si kaay bul daw kaay kaay noo def. waaw maa ngi fi. noo tudd. man Aïda laa tudd. Aïda nga ñëw fii pour seetaan si loo yëg. waa xanaa lu neex lu baax. waaw am contentement rek ci open presse su ñàkk jëriñu bi waaw. ñàkk neex naa nekkal. yii pire baax na am na respect ci ay magam am na ko ci ay rakam am na ko ci ay dëkkandoo macha allah. xam nga ki muy bëreel. non non xamaguma ko. Alioune Seye numéro 2 lay bëreel moo bëree woon nag Modou Lo rek doy na ndam. dëgg la waaw waaw waaw. moo koy ñun dañuy am ndam incha allah. waaw incha allah day baax. kaay ñàkk takk nag. wax ni commencé na si sa diggante ak Alioune Seye moo la jiitu ci làmb bëri na ak Modou Lo rek ndam la ci làmb waxatuma laak nga ñëw fii ci caaray nga fekk fi say am di jàmm fekk fi say mbokk say xarit say am di jàmm ñëpp jóg ñàkk ñu lay nuyu bàyyi la nga présenté wu wax lan nga nar ci sa bis ba yow ak am di jàmm waaw ginnaaw bay sant yàlla jur seen bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu ñaari waajur baax a baax di sant suñu sëriñ muy sëriñ Kara Sène borom di sàkkuwaat ci moom ñaan bu baax a baax a baax aussi waaw di sant nag ak lu caare yi gépp nag waaw ak yi ak fépp supporter yu ñàkk jariñu nekk bëggee naa la surtout nag tey waa commune bi yëpp aussi di sant monsieur le maire Coumba Ndoffène Fall wax liggéeyam rafet na gis nañ geste bi waaw gis nañ geste bi daal waaye nag li ma mën a xam ba mën naa ko xamal di wax askan bi àdduna di wax combat bi ma jëm yàlla na ci yàlla suturaal ma nuyoo noonu nag ngeen laaj leen question ma tontu leen si su si paree avec tout waaw. ngay waaj bis bu rëy sa diggante ak Alioune Seye numéro 2 ñu daan wax ay weer ba tey ñu ne li ci des juróom benn fan la loo waajee combat bi ak bëreeg Alioune Seye numéro 2 fu mu la yóbbu. waaw sànq maa ngi dégg sa question sax maa ngi jégal ci loolu nga ni man maa ubbi grand compte petit bi waaw loolu lu am na man maa ubbi grand compte petit bi tamit Aliou ku nekk ak jamonoom li may wax rek ba mu tollee si jamonoom kenn xeebalu ko li mu def kenn du wax du champion c'est des champions waaye champion ak champion ñoo dee waaw gaynde gu màgget gaynde gu ndaw moo ko fiy jëlee te noonu moment am nag dana def na li mu war def waaye nag ma sama jamono laa nekk sama moment laa nekk waaw li ma mën a xamal askan bi daal mooy tey bis xam ne ndam rek moo ma arrangé li may wax rek ki ñu topp ak ki toppaate mu ñu yem man dañ ma topp te lambu dama soxla barki borom Touba làmb dama soxla te lu ma lu ma mën lu ma xam pour def ko dinaa am ko def pour am ndam pour waa Caaroy gi parce que lii te aw ma frontière fi tey boo gisee nit ñëpp a jóg muy mbëri nekk jàmm gi si ba far ba gës champion bu ne ngi fi kon tey man ñàkkuma champion yooyu te aussi tamit ñu war a jàpp ci beneen côté bi muy expérience bi finance bi ñëpp a ngi fi li may waxaat rek mooy ndam moo ma arrangé le neuf bu soobee ak ci kàttu suñu borom damay am ndam maa ko wax bu xeexee ma duma ko su bëree ma jàpp ko daal lu ma gëm la. xam nga ki waaw li ma waxoon rek xam ko mun dawee si mun ñi nga nekkal ñu tàggal la yar la génération ak ñoom nga nekk xale bu ndaw xale bu ndaw boobu nag tey lu mu war a liggéey liggéey na ko si lan si force rapidité endurance bu doy tey ñooñu xam-xam bi ñoo ko yor buñ ko doolee ci moom du taxaw ak kon xam ko du du wees parce que lu tax mooy ñu nekk ak man ñu ngi may wan yoon bi ragaluma fu ma nekk. Modou Anta. waaw Baye Djili maa lay lay jaajëfal bu baax ñàkk jëriñu li ma koy laaj mooy diggante ma waa Géejawaay lan la ndax bu ma juumul bi ay sixième fois mu fay dugg benn défaite la fa am li ci def yëpp ay victoire la diggante ma waa Géejawaay lan la première question. waaw mooy baale bi muy dundee baale baale bi mooy lamb quoi Géejawaay tey bu ma la waxee dëgg du dara lu dul dañuy neexal lamb parce que xëy ñu fa nekk ak yi. ñoom dañuy liggéey ci asu làmb kon du ñu ay noonu tey man Alioune Seye laay bëree géejuwaay aussi te dama fa am ay am naa fa supporters yu bëri kon tey du maag géejuwaay laay reyante non non violence li ñu intéressé mooy ñu mobiliser jàmm am si ay supporters oto yi bañ a am benn problème nit ñëpp nag muy côté ñax ak côté keneen ak keneen a si am ñu dem jour ba mu ñëw daanu jël bu rëy si kàttu suñu borom. mais dama gis ne sa première défaite booy bawol moo la ko teg te booy bawol moo ko mujjee daan. entre ñaari defet yooyu noonu ban jàngat nga ci am. waa jàngat bi ma si am mooy xale ma gën a rek parce que tey ku xool tey ñàkk 2012 boobu noonu ñi mu génération ñëpp ñàkk ci téye làmb moment bi tey moom bu may bu muy bëreeg euh, Ayanda man maa ngi bëreeg Moussa Balla Gaye diggante boobu ñaata combat laa bëri bëri naa fi cinq mu bëri benn Modou Mbaye maa ngi naan sax Modou Mbaye Modou xam nga rek damay toll foo xam ne maanaam li muy yëg moo tax parce que tax mooy tey bu ne moom a jiitu si làmb dëgg la waaye nag garab si kaw lay fekkente ay ah. ak moom bokkul. parce que kuy takk ngemb géejawaay ñëpp nangul nañ ko ak mën a bëreem mu ne moo la dàq xeex moo la dàq bëree. moo daal ku la dàq bëre. Alioune Seye 2 moo wax loolu. non dama lay toog ci yow ku la dàq bëre te yaa ngi nii bàyyi bëri te loo wax si làmb duñ te bëreetoo làmb ñi si bëree dëgg ñi si lekk ñi si nekk dëgg-dëgg mën ko dëgg lekk si si waat yàlla suñu borom mooy dogalee noonu suñu borom mooy maye duubu dëgg naa ko muy sant si loolu dafa war a sant yàlla parce que tax mooy tey moo njëkk a bëri ñooñu tey bu demee bu demee nii mu nee na bëri naa Modou Lo dëgg la kon ko doon champion daan daan champion kon man champion laa bëgg a dem changé nga te naa la leen drapeau jigéen maa ko moom de madame Thérèse Faye maa jël comme euh, drapeau mbayti euh, mooy kaas ci bëri waa kay tey Aïda Mbodj maa jël drapeau mag laay Pitagore oh madame la daa waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp Fatima info Rewmi ñàkk ma gis ni ki ngay bëree sànq moo daan wax na ko euh, mu boot ci ñoo xam te ne ay ndaanaan te dégg nga ndaanaan yi wax ku ci mel ni Lac de Guiers numéro 2 Balla Gaye 2 Gouye Gui ñoom ñëpp taxaw pour soutenir ko muy ci côté entraînement ci côté lépp ñu gis ne entourage am dafa dëgër macha allah est ce que ñaq mi ngi bàyyi loolu xel waa tey euh, Mourane li gars yi gis fi tey ku mu doyul rek doot la day tey ku xoolal ñàkk 2012 ba def 2015 bi xam ne ñax tegu na si loxo yu wóor maa ngi entourage bu baax maa ngi staff bu baax te tey sama équipe yi ñu ngi may jàppal équipe yi nekk fii yëpp saa bu ma leen soxlaa wala ñu soxla ma dañ may teewal ndeysaan tey am na bëri yoo xam ne waxuma fi kenn dara waaye Fatma Dia lii ma jëm barki borom Tuubaa combat Caaroy la dañ ko bëgg. mais ci côté waa Guédiawaye nga gis ne ay leader ñoom ñoo ko entouré te ñoom ñëpp pare nañ pour soutenir ko muy ci doole muy ci lépp est ce que loolu yaa ngi ciy bàyyi xel. waaw bàyyi ko man du maa ko bàyyi xel de waa Caaroy ñoo bàyyi xel loolu boo déggee man la bëri yëpp gis nañu loolu cent pour cent boobu Fatma Dia fii ak te yaa koy gis fii combat bi ma jëm Fatma Dia waa ji ma waxaat ko li ma gis nii di ko dund di ko yëg su xeexee ma dóor ko mu daan. lu gëm a gën bàyyi si Alioune Seye 2 parce que marque d' adversaire moom moo tax année blanche am tey mu jël la tey bëreeg Alioune Seye pour pourquoi nga jël ko te nee na ñu bari say morom ñi ngi fi macha allah ñàkk dem jël Alioune Seye 2 te dégg nañ sa wax nga ni gaynde gu màgget te Alioune Seye 2 ñëpp xam nañ ne dafa xaw a retard mais nekkul est ce que yow màgget boobu noonu nga yaakaar ni que ni yow Alioune Seye daal dafa jeexal su su ma juumul say wax. màgget du question màgget la màgget terme la c'est-à-dire terme na lu wàññeeku ci moom. am moom cest foofu la ñuy waxee parce que benn nga ni xale yi nangu ñu koy jël man may jël mbaytin 9 combats ma am ñu wër amuñu ñu wër amuñu moom bu ko xale yi ragalee ngir ndaanaanam man xale boo xam ci faale ma ko mën a bëre faale ma ndaanaan ma li ma xam li ma gis rek laay def te ndam lay doon. non Fatma Dia déggoo ma la ku bëre benn combat nga bëri si kawam cinq combat foofu boo nekkuloon daanaan duñ la ko jox. calculé 2015 2016 la la laa bokk ma bëre ba 2019 naa si bëre dugg naa si kalaat bëre ñaata combat 4 génn bëriwaat benn mu nekk 5 ak bii ma jëm 6 si kawam kon Fatma Dia su ma defuloon ci làmb lenn kenn du ma bàyyi xel di ma tëggal déggoo li ma la man amateur du ñëw sama combat di mer ci yëngal muy dugg si ñëpp kontaan ci fecc ba. ci bëre ba fulla ak fayda at bi sax dañoo dañoo xam ni man dama leen libeere man Fatma Dia déggoo faale mu ko mën a bëre li ma faale mooy ndam li ma bëgg li ma xam li ma bëgg a jël te moom laay jëli sama ñàkk nag man sama ñàkk gi ñàkk jëriñ lañ wax n'est-ce waaye sama uti bi ma jëm ni am la sant. ñaata minute la non loolu sans dépasse ci terrain bi. san à dire sans stade bi. maanaam adversaire mu ñëw si stade bi moo tax arène nationale dafa déggoo man la ki tuddee rek soo ñëwee lamb war na la yoonam mun na gaaw mun na yéex waaye je suis paré pour tous tout côté mobilisation bi la ñuy wax ndax arène nationale sori na soriwul ndax yéen waa Bale bi arène nationale moo leen gën a jege te combat bi ku ci ëpp loo mobiliser promoteur bi da lay waaw kon man leeral la ci loolu muy Moussa le maire Coumba Ndoffène Fall préparé na kaar yi war a dem préparé na béy aussi tamit waa diaspora wax dëgg yàlla ñëpp jàppale nañ ma ci lu bëri muy États-Unis ñi fa nekk muy Abou Fall Fallou Gueye waa Turquie blouson yeeg yëpp xaalis mooy waa Maroc waa ñoom Argent Argent waa Argent ñëpp maanaam tey waaw trompeur tamit gis naa taxawaayam sama côté di ñëwaat na tey jii si axlu bi nga xam si maanaam mooy dëkk yi may dem nga xam si maanaam samay mbër maay seen mbër ma ñëwee si Kaolack Sibassor Kaba Toki Lindiane sant naa ñu fi nekk ñëpp waaw ñëw waa Foundiougne bi waaw ku ne xam na ni booy de booy jug mbooloo mu bari dalay topp foo toll ci sensibiliser say jeunesse ak ñi nga xamante ne ñooy ànd ak yow ci noa la waaw ñooñu moom ndax si dama leen dolliwaat ci loolu parce que chaque fois nag wax dëgg yàlla ñoom day ci loolu ñoom bu ma leen ne bu fee yuuxu ma ne ko noppil mu nopp tey maa ngi jégal sax xam ne xëy na dawlaa dawloo naa élèves yoo xam ne waroon nañ jàng parce que tey dama sànni message boobu duñ ko mun parce que seen xel mooy fat waaye nag ñuy jéggalu parents élèves yëpp di ñu xam ne rek di jéggaluwaat xam ne tey tey seen bërë xewle moo tax nit boo xewlee rek ñëpp taxaw da nga war a rey sa bopp loolu tax tey dama xool man parce que gis naa ay élèves yoo xam ne tey wóor na ma ne mën nañ daw jàng maa ngi jégalu si bu baax a baax di di jégalu xam nga waa jàkka yi waa gox bi commune bi yëpp waaw Basir Koyaate tamit ak moo Modou Baye Fall ak gars yi foofu ñu def rafet na Kanté gis naa lépp di kontaan waaw. ñax ngay bëre combat spécial. ñu bari seen combat ñoom ñoo ñu fi indi te am na ñu ne ñàkk jariñoo ak Alioune Seye boobu dañoo am booloo ba pare ci kàttan yàlla dañuy dem mais lan ngay wax say supporters ñàkk ak kii Alioune bi ci ba koy tëgg ñëpp la lépp la lan ngay wax say supporters boo leen bëree combat spécial ba pare lan nga leen wax ki ak ku lan nga leen di wax. dama koy daan kay loolu kay waxatuma ko. li ma leen wax moom mooy dañuy toog. parce que man maa leen bégal ñoom kenn ñoroon ku du man kon tey li ma la nee naa la bu kenn yuuxoon fee ma ne ko mu noppi dañuy toog dama koy daan si kàttan borom ñu toog ànd ak man ba grand combat bi jeex ñu ànd ñib boo déggee may wax ñu rek mooy Fatma Dia làmb dafa yaatu mu daan tax waaw yoo xam nga ni mu demee parce que lamb yomb tey mafia CFA bi du sama dërëm tey moo tax ñu def lii am nañ tamit les hommes hommes mooy jigéenu jigéen ñàkk jariñu tey muy maire mbootaay yi nekk si yëpp. aussi pàcc ñaam bi pàcc kaani pàcc carotte waaw. di sant waa poste Thiaroye pièce jagleel pièce détachée waaw ñoom Pape ñoom comme ni ñu ñoom Modou ba Aliou Baye Fall Samba Ndiaye ñoom waaw xam nga waaw di santaat ñëpp ñoom sam sant naa waa ñoom ñëpp nag rendez nag le neuf yi góor a jóg Abou Fall dinaa jóg xaadim ni ko waxee Touba Thiam parce que dafa ñu mbay waaw di sant Ndiaga Thiandoum Ndiaga mi ñëw fii léegi-léegi moom bi jógee France Diagne est là sama groupe bi ba France ñëw ak beneen gars yi nag jógee na a baax daal ak Bamba fii ba Diourbel Mbacke Fallou Touba waaw woo ñëpp daal nañ nañ ci jàpp ko ci Rone Bangoura xam nga waaw Fall ak xale yi ñu nekkal mbëri nekk fii mooy alliance bi gis fi Boy Gueye waaw ak ñoom Modou Baye Fall ñoom waaw gars yi yëpp ah di jégaluwaat waaw di jégaluwaat waa Paawu Jàkkee nag jégalu naa waa koñ bi bu baax a baax a di sant ñëpp ko nga ko